di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa Mbàkke alxalifatul am di taarifa di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko nee na ngi nuyu itam sëriñ Sidi Mbàkke mi nga xam ne moo toog ci jataayu sëriñ Abdul Ahad nekk ci bopp kër gi nee na ngi koy nuyu di ko jottali ay cantam di nuyu mbooleem ñi nga xam ne teew nañ fi ci ay mbokk tàmbalee ko ci waa kër Sëriñ Abdou Lahad yëpp muy doom yu góor yi nga xam ne ñu la bokkal sëriñ bi ak jigéen ñi ñi nga xam ne ànd na ñu ànd moom teew ci jotaay bii ñoom ñëpp nee na mi ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu mbokk yi fi teew yëpp itam jóge ci barab yu fasantikoo mbokki taalibe yi bokk yi bopp yi ak laj na bi muy commission bi nga xam ne ñooy saytu màggal gi ñoom ñëpp nee na ñu ngi leen di nuyu di leen sant bu baax seen taxawaay bis bi nee na mi ngi nuyu baax itam mbokk yi nga xam ne ñoo doon def waxtaan wi tàmbalee ko ci sëñ Mouhamadou Fadil Bousso sëñ Cheikh Mbacke Niang sëñ Xaali Jaxate ak sëñ Mbacke Abdourahmane ci commentaire yi mu ci def ak sëñ Abdoulaye Jaxate yi yëpp daal nee waxtaan wi kenn ku nekk tomb bi ñu la joxoon jox ko ko àqam ba nit ñi jariñ ñeen jariñ ci bu baax baax nee na kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen jottali ay cantam di wax nag ne lii mu leen woo maanaam yëfam la alalam la muy xam-xam ndax ku ko xam xam ne ku bëgg xam-xam la bëgg boroom xam-xam yi la firnde ji mooy daara ji nga xam ne taxawal na ci dëkk bi te ay junniy junniy nit di fa jànge eh, ci njiital doomam ji di suñu am satu jaxat eh, muy daara joo xam ne mbooleem yi nekk ci département bi ak ak région bi amul bu ko ci bu ko ci man ci ay résultats yu baax kon nag kon moom mi ngi bay waaram ci tool bi booleeg bëgg gi nag nga xam ne fu waxtaanu diine yi nekk dana ko teewlu tàmbalee ko ci jumaa ji yi ñu fiy def yëpp da koy ànd ak ñu koy def léeg-léeg mu teewal boppam léeg-léeg mu laaj kale yi déglu ko kon kooku xam-xam ñor na ko bëgg na ko loolu nag dafa ko doon ci ay way juróom ndax ñi nga xam ne ñooy doomi Sëñ Tuubaa yu jigéen yi ñoom ñëpp kenn ku nekk ci ñoom borom xam-xam nga woon eh, ñoom yàlla dogal na gis naa ci bari seeni leetar ñu doon bindante waaye sax daawuñu bindante wolof mais arab lañ daan bindante arab yoo xam ne soo ko gisoon ci jamono ji da ngay defe ne sax euh, daal ñi ko bind ñu ay jigéen ndax kawewaayu niveau bi nga xam ne ci lañuy wax loolu nag kon doon jigéen teewul maanaam bay sa li nga war a sàkku am li nga war a am ci ci ci yoon bi loolu nag kon royteef la ci woo xam ne doom yeeg ca baat yeeg nañ ko def modèle ci di ko di ko roy ci doxin woowu comme dafa guddi nag ñu ngi sant ñëpp daal rawatina itam organe de presse yi nga xam ne teew nañ fi ñëpp di jël wax ni di ko saare nee ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di leen séntu ci dis euh, bi nga xam ne moom lañ dëgmal muy màggal gi di leen séntu ci ànd ko yéen ñëpp